sant yàlla bu nice cool ça va alhamdulilah et toi. bisimilah. tu t'es bien sapé non. Ouais, c'est vrai. noir black and white. C'est vrai, de moom foo neex laa génn man. waaw foo leen neex man maa mais là ma. nice sant yàlla bienvenue dans mon émission 4 sur le plat. Ah, merci. avec comme présentateur Mamadou -hmm. et comme invité Khalil. Khalil le fou de Wassare. le fou de Wassare. Ah. l'ambassadeur des fous. et c'est dëkk nu mu tudd Koutal Koutal wolof. Koutal wolof waaw Koutal maa ngi di nuyu bu baax a baax comme ni koy waxee woon sànq rek yéen seen bi émission cas sur le plat cas sur le plat comme d'habitude cas dafa nekk sur le plat ça veut dire que tey jii ñett plat lay indil plat gis benn information bu bees fuy njëkkee plat bi xam ngeen yaa aw ginnaaw appel bi ñu bëri commencé parce que ñu bëri jàpp nañ ni loolu lu doon def du ay cant mais ay sabara doon def bu ñu ibbee ak si beneen palaa

nii bi benn plat bi. Hmm. muy yaa ra yaa saf saf la na saf saf tey. yaa awa rasul. ba nga déggee histoire bi nga dugg TikTok gis ko Instagram Facebook hmm. lu mu la jox. seen. seen yaa dafa neex quoi. lu tax loolu. bilaay bi mooy. wallaay nga dem di. fecc TikTok laa doon dëkk seetaanee voilà mais yaawa yaawa yaawa bàyyi na loxoom de. parce que yaawa porteur de voix la. comprendre ni dañ koy mais moom waroon na doxalee neneen ñu dul noonu. waaw foofu moom jug na fa quoi. mais est ce que si peut être euh, Sénégal yi ñoo ko garaawal rek parce que des fois tamit euh, appel la mais peut être tamit moom peut être moom dana ay cant la ko def te c' est pas la première gis ay cant yoo xam ne tamit ñu ngi fi indi ay sabar ak yooyu Wah, mais cantu pasti ai ừ. ừ. ừ. ai affaire yu laay nag ak yooyu. man c'est la première fois ma gis ko. li maa ngi koy soo gis te ñëpp ñu ngi koy soo gis. te gars yi ñu ngi koy naxaw neexul kenn. waaw man xam ngeen man ni ma mel nii. maa ngi doon dof kuy dof. du ma dem si ay kii ay appel ak naan maa ngi koy fecc ak yooyu. mais am na si yoo xamante waru ko def. yaawa yaawa kay dañ ko yaawa yaa su duñ ko sànni sax. sànni ba. yaa yaawa yaawa dañ ko sànni yaawa du nit. mais peut-être nag seytaane moo ko dugg. waaw peut-être seytaane. non wax peut-être mën na wax ne que Sadio peut ay peut-être. waaw mais waaw mais xam nga rek mooy loolu man maa ngi xamu fu may mujjee seytaane mu ne maa dugg ma dem foofu di fekk di def n'importe quoi. Mm-hmm. yaa ma gën xam ma dama ne ko peut-être seytaane seytaane moo ko dugg. waaw mm-hmm. ah, mais yeneen yi beneen yoon beneen yoon yooyu da ciy bàyyi xel. est-ce que du ngeen jaawale maintenant seytaane ak nafsu parce que des fois sa bakkan ngay topp def loo neex <laughs> bu dee ngay jaawale seytaane des fois ngay tooñ de ah waa ko ah mais mbir mi daal yaaw daal bàyyi na loxoom weere na de. Hmm. waaye fecc si suuf. <laughs> yow loo koy conseillé. waaw loo koy conseillé mooy mooy événement yi am noonu bu amatee na bàyyi xel si li mu jógee nii quoi. Hmm. parce que moom dégg na ko ah mi ngi koy mi ngi koy seetaan te boo demee naxaw ngi koy naxal. Hmm. waaye yeneen événement moom na si bàyyi loxoom na si na si na si na si. na si bàyyi xelam bu baax baax. Mhm. waaw mais suñu Sénégal yi yéen a ko war a comprendre parce que c' pas la première fois à chaque fois appel sax bu jotee. Mhm. booy bu ñu wax si wàllu célébrité suñu yëpp si yaa te mosu ko def donc tey bu defee est ce que jàppoon ne Sénégalais yi tamit euh, war nañ ko ko mën a baal. waaw mais ah ku nekk sa xalaat rek ku nekk sa xalaat ak ku nekk ni nga koy jàngatee. Mhm. ah man moom bu démb moom ah yaa daal mi ngi rek yaa ngi doon am waaw ah, loolu tamit question waaw. asal na moo koy jël xaw ma. Ah! xaw ma damay laajte rek sama yoon nekk damay laajte. yaa am na benn fu bu toog nii de. yaa ngi bëggoon jël. Ah, bu waaw maa daal en Sénégal yëpp ñoo ngi koy naxarlu bu baax baax mais peut-être tamit comme ni ko Khalil waxee rek euh, peut-être njuumte la mais bu pare bu paree si yaa awa ngay indi beneen plat. boobu la. ah xam ngeen que l'artiste waaye balaa nga sëy. waaw. <laughs> voilà daanaka. waal nee dafa takk suuf. sëriñ dafa sadik waal dafa sadik. lu tax nga waal dafa sadik. mais est-ce que takk suuf boobu dëgg la. moon fi teg ni laaj ah. xam ne yow moom yaay daal Ndakaaru foo nekk ngay dugg may waal takk suuf boobu dëgg la. waaw mais en fait mm-hmm. ah. Mm-hmm. Euh, takk suuf ni naan baax na wala baaxul. Mm-hmm. mais su fekkee dëgg la moom ah foofu juum na parce que warul takk suuf waaw. bu fekkee du dëgg rek. bu fekkee du dëgg ah nga xam ne du dëgg rek. nga xam ne li mu déedéet nga xam ne li mu déedéet. non non dañ bàyyi da nga di def à chaque si si deru nit parce que waale moom à chaque fois da nga koy dégg waale sonn na lii waale sonn na lee leneen lañ fi déggul mooy waale ëmb ko. <coughs> yaay ah waaye bu mbir moom <coughs> oh loolu ah loolu leneen lay doon loolu. oui mais. ah loolu kay dinaa la mën parent kii. dinaa parent kii. ah voilà moom. mais man man moom tey man couple yaa euh, pas euh, kii di euh, Astou. Astou mooy Miss Sénégal 2016. waaw ah. xale bu rafet macha allah xale bu mool bu tabaaraka la. waaw mais foofu ñoom ñaar ñoom ñaar seen couple dafa nice sérieusement. mais seen couple nice na mais foofu moom su fekkee waaye dafa def takku suuf moom ah foofu moom man moom du ko si àndal moom. Mm-hmm. waaw parce que euh, waaye moom magum jëmm la. Mm-hmm. muy takk na de waxtaan ak soxnaam. Mm-hmm. ne ko nii ak nii xam naa soxna soxna Aïda moom du ko tere am beneen beneen beneen kii beneen jabar. mais garaawul quoi. waaw ah, waaye imagine waaye waaye këram biir këram waaye biir këram. bu yore fii soxna Ayda Aydara. bu mhm. yore fii astu mais loolu tuura. mais ñaari xale yu ah, ci biir kër. xam naa ne si daal. waxuma ay contrat international lay am su ma ñaari jabar laay am. waaw mais Sénégal mu ko takku Sénégal nga gars yi bu bëri liy wax naan Sénégal. Hmm. lépp lu mu wax rek am na si nekk dëgg. est-ce que jàppoo peut-être da jël parce que yaa awa tamit à chaque fois da koy gis si soirée euh, pas yaa awa eh, yaa awa bi baax ma ngi yàlla ah astu. Hmm. à chaque fois da koy gis si si waaye balaa nga sekk. ma ne waaye Seydou am na droit am. neuf jabar sax su ko bëggee. léegi moom du fi am. ah mais dinaa fi am ay takkoo seen ñoom bu ñu sonal. mais waaw bu toog bay takkoo waaw dafa màgg dafa màgg. Euh, ma ku gis lu neex lu nekk dañ si jéem neex ku neex. te ah, neex. fii nii suñ nii am na. Sénégal mais da nga koy bañ a dégg da nga nii nii am na li fi neex. fii fan nii nii. fii Sénégal fii nii nii seer do do do do. non non non loolu àgg la àgg kon kon nañ bàyyi kon jàllal si beneen. jàllal non man ba ba léegi parce que yaa aw man moom mënoo vraiment Sénégal yi yaa sama gel bi mu ah est ce que est ce que yaa aw mi dama ko bëgg ma te tey ma ko. seen yow yow baax na nag. waaw waaw est ce que boo ma il faut que ñu kii Wally Seck. imagine Wally ya, asu. non loolu vraiment dara nekk si mais xanaa xanaa soxna ah, mais Wally Seck taxawoon na bu waxee waxee ñëpp gis nañ ko fi dégg nañ ko fi. Mm-hmm. waaye daal waaye am nga droit takk neuf jabar mm-hmm. soxna nit yooyu boo ko wërsëg moo tax loolu kese la. mais garaaw de buñ déglu waxu nit ñi nag loolu garaaw. kon na ko takk na ko takk takkal mais takk suuf bi moom normal loolu yoon booy takk demal yéegal sa jamono. mais sa nekku tamit ay gaañ kese tamit. waaw ah, mais bu nekkee ay gaañ tamit waale moom tamit mooy loolu waale moom mooy loolu. santé du peuple ñëpp nga xam. mais am ah, normalement santé du peuple foofu laay tëjee santé du peuple normalement lu mu déree war na am ñeent bo faam. waaw yow yaa ngi ni ñeent santé du peuple neuf la war a am ak takkoo. mais neuf li ëpp li sax mooy le neuf. di takkoo quatre ak takkoo takkoo yi mun na dem ba vingt. dara ñu gis waaw bàyyi tëg plan boobu. waaw balaa ngay jeex parce que des fois il faut ñu dese si ñoo naan. waaw ñëw si benn troisième plat dafa koy tëjee muy couple boo xam ne Sénégal ñëpp di leen bëggoon. muy waa Maabo. à chaque fois bu leen gisee keroog rek maa ngi tasante ñoom Issa ñëpp a kontaan si ñoom seen seen seen tànn. ñu toog saa ngi dégg si ñoom divorce dégg si ñoom ay dóor violence de la femme maanaam jàpp ko di ko dóor. kan lañ violé foofu ñu ne. non waxuma la violé de. yow ku la ma la amee des dama di ko violé. waaw am na ñu mais waxuma la violé. Eh, ah, si huit mars mois de mars. Ah, ñëpp di jigéen. moom mu jàpp ay jigéen di dóor. Ah, si su gars yi wax est moom du yoon. du yoon dóor jigéen kenn waru ko dóor. Mhm. parce que jigéen mooy suñu yaay jigéen mooy suñu jabar jigéen mooy suñu rakk. Mhm. jigéen daal mooy mooy lépp ci àdduna bi jigéen kenn waru ko dóor. am na yow da ngay amee jabar joo xam ne sénégalais yi. c'est macha allah. tabaaraka est-ce que loolu am na sax est-ce am na gars yi moom parfois dañuy wax. politique Sénégal il faut am na. waaw ah, kon am na yow daal su fekkee da ngaa dóor sa jabar ko dóor waaw nit ñi dañuy xool si yow mooy ko dóor man nag wax su ma waxee nag mooy loolu. mais da nga war a wax nag. non non xam nga dañuy bàyyi ba si kanam. non non waxal parce que parce que non seen xam naa li ma la wax. ah yow la bëgg wax booy nga bëgg wax. non <laughs> ko waxee tuuti la ful yi wasaare moo moo moo. ah waxal waxal li mu xam xaw fu kenn kenn toppee kaw dara yéen seen ans yàlla toppaloo leen dara waxal. mais man yi. Hmm. waaw ñu ñëwaat si Mabo maanaam est-ce que loolu cat bi cat leen topp Sénégal yi tudd leen ndeysaan kii son bu fi génnee mu daal di dal ndekte boobu tamit ndaw si comme ni ko waxee ça fait six ans gi jëkkër ji moom koy dóor. ça veut dire moom doon loolu lan la est-ce que du maanaam presse bi wala maanaam milieu showbiz moo mel noonu ba mënu woon génn dina naqaru à chaque fois jë jëkkër ji mu na ni li bu génnee. Mhm. image yi daal di dëkk bi wala gis nañ nit ñi gisee ko neneen. su fekkee mi ngi koy dóor. mais waaye kon ku jigéen bi mën na mun. te man si dama jàpp ni mu ko doon muñalee noonu. Mhm. ba waxu ko kenn. mun la góor na bu ñëwee. billaay yaay sàngal moom wala sàngal boo sa yére bi faxas ko. seen nag booy nag booy yi yéen seen seen seen plat seen plateau bi la. Ah, gannaaw léegi ah continué. foofu seen plateau bi yéen. Ah, c'est pas grave waaye continué. waaw ah, nga ñëw fii ngeen di invité ay mbóot di ma topp ah tamit nag. jégalu du yoon ñoo ngi jégalu. waaw ñoo ngi jégalu Fatou deful liggéeyam. ak sëñ bi waaw Fatou kay day wéy. léegi continué foofu. su fekkee six ans yi nii mi ngi koy dóor mi ngi koy suturaal. kon hmm. daf ko woon a gën a suturaal. nga daf ko woon a gën a suturaal parce que jëkkëram la te dëkk rek koy sutura. waaye sëy boobu tey doon wax na franchement. waaw baax na sëy yow seet na gis nga xoolal am na xoolal yow tey tey man tey su ma ñëwoon tey ñaan si sa doom tey nga dem ay 5 millions yooyu kooku sëy si wule. kooku bu ñëwee kooku jënd la. te bu deful yoon dama koy ñaf ba mu. waaw yow. yow man faaw mu mooy li ma la wax rek. Euh. ku jigéen gi da ko mën a suturaal parce que jëkkëram la. mais nag dóor moo mais surtout ba si dóor. waaw mais seen fii gis nañu mais mais mais surtout su surtout am na parce que 6 ans bu fekkee lu lu yi wax dëgg la. 6 mm. ans mu jàpp di ko dóor ba tey mu doon di ko wax. ba waa koñom tey di information fa la génnee waa koñom sax dañu fekk nañ ba dem këram jël ay bagages nekk ne ko muñal à chaque fois ko doon muñal mais ay dóor moom bu si bokkee loolu. ah dóor moom hmm. ah. man moom wax dëgg fa yàlla ah. moo xamul jigéen li nga mën a xoolee. li nga mën a mel ne jigéen mooy suñu yaay mooy suñu lépp mais gis nga affaire cadre sëy moo nekk affaire bu garaaw comprendre nga. ñoom ba ñu bëgg di ñu fekkee wu ñu fekkee wu. booy wax dof nga nañ tëj. waaw moo ko dof ma ne ma ne ma ko dof nga dégg ma. ah waaw dof su ma la wax ma ko dof naka naka may déggee la. aywa waaw. waxuma sax jàllal feneen. donc ba ba moo nekkoon troisième plat bi. ah waaw sa plat yi dara neexul beneen ba mu andee plat bu neexul du ma wax dara. léegi plat yi ban moo si gën a neex. plat yi bu Wally Seck bu Yaa Awa ak bu kii. yaa yaa yaa parce que yaa célibataire la kii am na jëkkër kii am na kii am na jabar kii am na jabar waaw. bu Yaa Awa moo si neex. moo si neex mais maa lay gërëm merci beaucoup. waaw mais maa ngi gërëm ñëpp. maa ngi gërëm kooku maa ngi fu wasaare maa ngi gërëm waa wasaare hmm. di gërëm waa Koutal la sama dëkk c'est moi l'ambassadeur de Koutal. c'est hmm. moi l'ambassadeur. waaye fukki bi la. fukki bi moom dafa am <laughs> waaw góor gi ñooy ñooy ñooy dox si yaram parce que faa faa du nettoyé bi moom muy fóotu góor gi comprendre nga baax na <laughs> ok ok ah di nuyu papa góor la sama papa la quoi sama grand la sama grand boo xam ne si moom laa nekk. léegi ba mu nekkee Dakar ba léegi maa ngi si moom waaw di nuyu papa góor waaw di ko di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi. fu mu dem la ma koy topp. waaw bu bu bu wóoree muy jàmm sama mag la sama xarit la. merci beaucoup Dóor yi eh, aw damay nuyoo maa ngi soog a ñëw invité damay nuyoo. nuyoo di nuyu waa Koutal yëpp. duñ su ma limee dañuy juum maa ngi nuyu waa yëpp képp koo xamante yaa ngi Koutal rek naa la surtout waa ASC Mosquée sama koñ waaw bàyyi ma kenn di nuyu sama papa di nuyu sama ay su bëri laa ko def amul ñoo di nuyu yaay di nuyu ñëpp wasalaam ah di Faa di nuyu Mbène ah di nuyu ñëpp xar yeeg monsieur yëpp wasalaam jaaraama fay c'était tout Merci le plat j'espère bien que euh, madame ne les pas de ça dépend de vous euh, merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous suivre maintenant il est temps de donner du temps aux autres paradigmes en attendant je vous conseille de manger beaucoup de bananes sénégalais chaque jour banane ngeen ça. et boire beaucoup d'eau Merci beaucoup merci ah, beaucoup